Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan TV ba léegi ñu ngi nekk kii di maam góor euh, Diazaka nga xam nag euh, jamonoy deux waaye moom fesoon na bu baax a baax tey Mame mais Diazaka mille mai 2002 tombeek ajjuma vendredi tey ajjuma bi tey tombewaat ki nu joxoon mbégte moom tey ñëw ak leneen lan ngay santir ci ñaari ajjuma yu métti yi ñuy xaar pour denc ko jox ko borom. waaw lu lu lu lu métti la parce que boo xoolee Pape Bouba métti mm-hmm. euh, bi Sénégal yëpp ñoo ko bokk. Mm-hmm. mais rawatina ñun ñu dëkk Tëngéej. Mm-hmm. tey man a magam ñu bokkoon classe. mu doon ànd ak sama rak. nekk sama bu moo joxoon cër respecté ma. liggéey nag liggéey bu rafet boo xam daf ko liggéeyal waa Sénégal yëpp. te bés bii du jaas. ñëpp a ciy jaar. donc dañ koy ñaanal rek yàlla xare ko àjjana. woyofal suuf si koom te teg loxo si njaboot gi mu fi bàyyi. parce que dëgg jikkoom neexoon na Sénégalais yi nit ku yaru la ku humble la. ku liggéey liggéey bu rafet la pour la Sénégal. donc daal ñun bu ko cat daal jiitu fu mu jëm. waaw loolu lañ koy ñaan kontaan a baax jërëjëf merci beaucoup maam kooku mooy maam Góor euh, Diasaka euh, moo doon yëkkati kàddu yu rafet yooyu ci Pape Bouba Diop Alex Dacosta mi ngi ci beneen côté tamit.